la làqatu ci ginnaaw internet di wax yow do góor ñak jom gog koy oh, eh, bu la doyut man dama dama am sa temps man mais est ce que du yenn say sa communication parce que yenn say nga deg xam nga bo amul ñu la jox nga sol sa mbub mu gatt wala nga si ki amul ñu la ba pare ngay tak sa communication pour bo pour lan bo amul ñu la jox yenn sa communication oh. ah wa legi amoo ñu ñu liggey de la jox ba pare nga nan ak cëriñ gi dans la wala sarien la wala nangam moy limal wax ra ra gi ñuy bañ ko ko dag ku leen rang dong lañ bëgg te kenn du leen dal billaahi sunna moom dina ko jaay ma jaay ci réew mi mooy ñàkk jom sëñ Tuuba ak ñooñam foo leen koy jaayee sëñ sëñ bi yow dëkk mas ngaa dégg wenn xeer wu ñuy tab tabax ci yoonu murit kilifa jiite ko ñu ne la ñuy tabax ab immeuble boo xam ne dañ ko bëgg di luwee wala dañuy tabax na loo dégg ñu teg kow xeer néegub yàlla lay doon jàkka jumaa baa daaray alxuraan milliards yoonu murit yépp ci jàkka la dem ak daaray alxuraan ak jàngukaay liggéey gii nuy liggéey di jox ñii nag ak topp leen seen maama nu ko defal ginnaaw yow toppee woo ba noonu toppee rek te kat am na ñu leen topp ndax saa yu ñuy wax gis naa mbooloo mu leen topp dañoo amul lu leen defal loolu seen problème ndax ñoom amuñu ko leen defal ba ñuy defal ñun yor hmm? te sëñ Tuubaa moo wax ne moo wax ne mhm. rajaa uman ahabbani mu xaqaq inda lezi lii amali yu xoq sëñ Tuubaa ko ca yaakaar ki ma bëgg du tas lim yaakaar lu dëgg la mooy am ginnaaw moom nag moonu woo ba noppi ne li ma leen di wax am na loolu kenn mënuñu wax sëñ Mamoor Jaara borom saam daana wax ne sëñ Tuubaa woowu leen ba ngeen ñëw mu door a wut lu mu leen jox da ko am door a woote te lii ma la wax rek ci nekk yoonu murit ba muy door a tàmbali dañ naan tàkk-tàkkal boob laag ay nax laag mënta sotti ak murit yi jànguñoo diina ñoru leen loolu la ñu daan wax tey jii bu ñu xëccoo ëpp jàkka kenn ëppale wunu ëppi juma kenn ëppale wunu naafile kaamil alxuraan baa ngi am Touba boo fa ñëwee gone fukki at ak nangam ku nekk jur nga doom ju mokkal alxuraan bindi kaamil mhm. diine ji ñu jàngale bu gàggoon gone yee koy lijjanti mhm. ama barke bii jëm ci njabootu sëñ Touba gi nag ku jàpp ne moom ginnaaw sa maam bukk ci woon rate na rek nit day nungu dogal te espace bi dafa fatt fi ne kenn mënu tuta ñi woote sonn na ñii doon nañ ay murit ñi doon tidiane pa ablaye nga ne ken mënta wotal ñi doon ñi seen ñi doon xadir espace amatu dañu occuper terrain ñi dañu doon mourid ñi doon tidiane ñi doon xadir affaire bi jeex nga ñew na cëpp ci dig mënu ta fi jël kenn xam nga li tax affaire bi sof moy waaw yow mi wax bu fekkon da nga juddo won ci ginnaw arabie saoudite ñew sax ñu xam na gan nga waye sa baye ak sa mam kadior gi la juddo won ak ba ba bawal ñu xam la yow nga ñëw jàngi ñibbi ci ñent téré bëgg contrôle contre te bëgg duggal ci boole da nga doon ku bes ku nu mëna convaincre motax deg na kéro koy wax nan man lima ma moy lo meuna waxtu a wax ci ben tarixa luñ la falé li def moy li nga fi indi rek dang ko fay fek <laughs> da nga ñoo yutul lu bees ta borom dañ la xam na nga fi nga juddoo sa ñaari mam ku ko top gis ci ko doy war don don don war dank nañ loolu doon nga no ku bees affaire bi espace a tidiane tijaan yi pare nañ Pape Laye gëné ne ko mënoo xaadir yi ñeseen yi la ilaha illallah wasifa yi yi murid yi gën a rokkosu gën ci seigne touba na di leen ajjalaka karkaral naan leen moytu leen taal yi tàkk boo leen ci ñun baax na ñoom sébb bi nañ tàkk ndax buñ ca daanoo dee baax na loolu rek la waaw te koo ci gis li mu dégagé rek lay encaissé li muy dégagé rek lay encaissé bëgg àddina mbooloo doom képp ku ci sañoon. xam ngeen ne sëñ mu sëñ Muntaxa mi daa ko daa daa daa provoqué kenn. fi na am nañu takk addiya di xaar mu ubbi bañ dem siyaare ji. boole ko di joxe di jooy. non lañuy rangé ràngee kenen rang kenen rang kenen kenen nah, bo démé fé ci mbacké tay institut islamique bé ñu fay tabax ay bay fa la koy tabax. ñaata mm-hmm. milliards ci dem université bi ñaata milliards ci dem han waaye kula dakk dàq la lu mu for la. dëgg la. te man aw xass xama kay lay metti ci man. xass wo xane man do nga ko mom momay metti ay xass wo xane sa bay nga ci jiital ndax bo né gëmo leen diiné ba noppi wedd na sa bay gëm diiné kon ko xass du ko metti ñi ci dess nak di wax ni jëluñoo faale ñooñu dama wax ne xam nga la ci neex man bala may kontaan léegi-léegi bu ma gars yi wanee dara na ma am na kuy wax nii damay bég mooy li ma la wax léegi xam gi nga ma xam te xawuma la gàññe naa la ci déglu gi ngay dégloo dara man ci di ci een loolu man neex na ma ndax yow bi nga eenee am na ku may wër ngir lu ma jox waaw waaw nag nan laay ñàkk fayda bi la maa ngi yow ne ci terrain bi di affronter rek mhm. nañ defante rek da mhm. rek la nañ affronter ah man moom du yàgg ba li ngay wax moom ma di ko déglu ba di la lijjanti moom parce que man li nga am baax na xam nga yow comme man de da nga kaani gaa ngi kaani gaa ngi kaani gaa ngi te man suukar ma intéresse dama lay bàyyi sa kaani rek ak sa tisli mais man maa ngi suukar si <laughs> foofu la ngay wax rek waaw jërëjëf sëñ Gana Messere Makhtar